maintenant pour l'assemblée euh, bu ñu xoolee président moom mooy chef exécutif mais deuxième pouvoir bu mu ci am mooy assemblée. Mhm. assemblée bu doxul dara du dem ci démocratie c'est c'est la vitrine du d'un pays. Mhm. defe naa loolu aussi loo am solo la maintenant lu ñu ci mën a jàng mooy que euh, gouvernement respecte na règlement bi c'est question d'actualité député yi mën nañu woo njiitu gouvernement bi ak gouvernement bi. ñun ñëw tontu ci nga xam ne lii mooy actualité. Ah, amul par parlo. Mhm. yi question na samp na gu premier ministre loo ci xalaat ministre bi loo ci xalaat chef de gouvernement bi tënk lépp. Mhm. loolu aussi c'est c'est dañ ko war a rafetlu euh, yàgg na opposition ñu ngi doon xaar gouvernement bi premier ministre bi coow li bari bon mais quand au moins yàlla y a le respect sur le fond. Mhm. que gouvernement bi ñëw na ñëw.